passeport li mu euh, njëkkee dégg ci wàll dama ne de bu dee dëgg ñoom doyul woon ñàkk nañ kersa bu dee dëgg la député ñu daggal la salaire bu baax jox la carburant jox la oto man la nit nekk na gardien ci koñ sax ak fukki junni ñaar fukki junni garde ngorom yow nga nekk député ñun la kaay représenté peuple bi nga teg ca di jaay ay passeport yu bon yow doylu ñàkk nga kersa bu dee dëgg la mais lu ci mën di am coow am na il faut nécessairement des enquêtes loolu moom ñu nu jiite warul sax xaar ñu leen koy wax seen jom ak seen ngor waru leen a may sénégalais yi di leen wax dem leen defi enquête ñoo ko war a def gaaw setal seen bopp gaaw war nit ñi ne lii kat dafa rax ci mbir mi mais du ci ñun dindi ko teggi tuuma gi lu ko moy nit ñi tam ñu xam seen bopp rek xam ne kat système bii baaxul donc ñoom ñoo war a gaawante ci mbir mi mu leer waxuma nag ni ñu condamner les gens avant l'heure aussi il faut que ñu def ndànk yoon def liggéeyam ñu xam ko def ak ku deful waaye bu dee def nanu amuñu kersa